mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi am mbégte di jégalu it ci kàddu yi sëriñ Mahamadou Xaban yi eh, abisahullah wa yi sëriñ Mouhamadul Muntaqa mi ngi jiital ci ay kàddam nag ginnaaw bi mu santee suñu borom julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di gën ñaanal eh, kilifa gu mag muy di ko jaaree nag ci sëriñ abo sam sëriñ abul baraka ak ay jawrinam sëriñ basiru ak sëriñ abdul fattah nee na mi ngi mi ngi mi ngi sant bu baax kàddu yi li tax mënu koo yëkkatil boppam bërëb bii ñu koy ku ko xamee xamoon ko diggante sëriñ mam mamor rek da nga war a mën a xam li tax kàddu yëkkatil yi ci di ko yàlla defit kàddu sëriñ waa kër sëriñ Mamour yi nga xam ne ñoom lañ dara jaale ñoom ñoom lañ dara jaale woon bis bii ñu jël seeni kàddu ñoom it dugal ko ci kàddu sëriñ sëriñ sëriñ xabaan yi muy ñaari kàddu yoo xam ne dis na ci ñun lool waaye dañoo wax ne day fàttaliku rek mom ak sëriñ Mamour daaray sëriñ am sufi ja nga xam ne dajawoon nañ moo mu bëgg ñu booleel ko ñaari kàddu yi yëkkatil ko ko kàddu yi nag da ciy sant rek cay fàttali ca ciy soññe ci sant gi nag nee na da ciy jiital soxna yi ndax nee na li Cheikh Mahmoud Fadal waxoon ne jigéen ñi de am nañ am nañ am nañ fulla lool ndax gis na ne liggéeyu jumaa ji ñoom ñoo ci ñoom ñoo ciy njëkk ñoo ciy gën a bari looloo tax mi ngi leen di sant bu baax di di ko jaaralee ci ndey daara yi ñoom it ñu koy jaaralee ci Touba ca kanam ndax bëgg a yóbbu Touba ca kanam kat dara jiituwu ci lii nga xam ne moom lañ xamee woon Serigne Touba te sëriñ bi day wax ci masaalikul jinaan ne sadaqatun waxidatun qad tadfau sabxina miitatan min assuui fahu nee na benn saraxe rek amaana bu jañee juróom-ñaar fukki dee yiin yoo xam ne yu ñaaw lay doon alxuraan it suñu borom di wax ne kàddu gu mujj bu ko nit ki amoon buy bëgg a faatu buñ ko laajaatee loo bëggoon danaan fa asaddaqa wa akun min asalihin wala mu ne laxal lii ahmalu salihan fi ma tarak nañ ma mayaat tuuti sens ma dellu jëlaat donte ab dërëm lay doon ci di ma nar a bàyyi sama ginnaaw daa koy saraxe doo ko ñëwaat yonent bi alayhi salaatu wasalaam it wax addis boo xam ne kuñ naan nadd la ibnu xubaydi moo ko nettali mu ne ëllëg yowmal xiyaam nit ki danañ ko téye ci koñ boo xam ne doo ko jéggi ci laaj ñu la ñeenti mbir yi ci biir ñeenti mbir yooyu nag day da caa wax ne wa an maalihi min ayna ktasaba wa fi ma anfaqa alalam jëpp danañ ko laaj centime bu nekk fan nga ko jële ak centime bu nekk fan nga ko dugal kon bu ñu agsee ci lii nga xam ne sadaxa jaariya la ni ko sëriñ Mbàkke leerale léegi am na addis boo xam ne baqiyan min baqaya bani israil la wax am na benn riwaaya bi day nettali na sax soxna su doon jaay boppam la nekkoon ab yahud boo xam ne dafa fekkoon ci àll bi benn xaj bu mar mu naan bay dem daat koy gis mu mar bay yalkat mu duggaat ci biir tànq ci summi botom bi mu soloon tànq ci ngànk bot bi génn wëgg ko ba màndi mu mu dellu ci soxna soxlaam suñ borom jéggal ko ngir xidma boobee mu defoon looloo tax lii day lu yaatu loo xam ne Sëriñ Tuubaa sax da ko beral ci Masaalikul Jinaan bunt bu rëy tudde ko faslun fi sadaxati wal infaax moo tax mi ngi ci am mbégte bu baax nee na rawatina commission bii ko yoree ci tubaa ca kanam nga xam ne moom ñoom nee nañoo bokk liggéey bi ndax xam na bu baax ni Touba ci kanam di doxee ne lépp lu muy def rek day xool ña ko sëriñ bi jox mu jiital leen ci ànd kook ñoom loolu it nangu na ko bu baax ci commission bi ci liggéey bi kàddu yi nag moom muy gudd ak muy bari sant rek lay doon ak di tatagal mbooloo mi di di jiital ci sant gi Seex Mamadul Muntaxa di xame it di soññ mbooloo mi it ndax ñeen fukki eh, junni bool yi ñu yi ñu jënd tàmbalee ko ndaamaatu mi ji xamal ne moom li li li mu jot a ci ay daara ci Touba rek fi mu ne nii teg na ñaar te ñaari junni daara ak ñaar téeméer ju topp yokk na fi mu ne nii ñaari junni daara nag boo ko boo ko recensé bul imaginer daara ju nekk ñaata nit a fa nekk ca bool yii ñu tàmbaleegun ci ci gox bi junni junni bool ngir ñu tàmbalee ko ci ñu tàmm ñu tàmbalee ko muy liggéey bu yaatu nag boo xam ne kon ñi ngi mi ngi ci feddali ak ak soññeem di ci feddali ak wooteem ci lépp te xam ne moom daara lañu ko dénk ca daara mooy lenn li alxuraan li Sëriñ Tuubaa daan nangul boppam alxuraan mooy nen li sëriñ Tuubaa daan nangul boppam ca loxoom ba ca loxoom ba xam na ko bu baax loolu it mi ngi ci woo ñëpp di ci soññ ñëpp ñi nga xam ne dëkkuñu ci gox bii ba ca ña nekk bitim réew sax bu seen bu ñu bu bu seen xel nekkee ci jëmmal kenn mën naa nekk ca àll ba daal di xalaat ne bëgg na maa jël daara kat dundal ko weer bu boobaa bu ci jokkee bu ci jokkoo ak kuréel gu mel nii danañ ko orienté ngir mu xam fan lay jaare ba bu bëggoon a sasoo dundal daara aw ki bëgg dundal daara semaine ki bëgg dundal daara daara ab bis loolu lépp bunt bu rëy la bu tijjeeku ci xeet yëpp nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lim ñu waxoon gën naa yaatu lii gën naa jot lii waaye nag ci ci ci kàddu gi ndongo li ko yëkkati ak réy gi mu réy ci moom moo tax fàtte na ci lu bari eh, ñi ngi sant bu mi ngi sant bu baax ñëpp di gërëm ñëpp di sant sëriñ eh, sëriñ waa Touba ca kanam it direction Touba kanam turu sëriñ Abdou Lahad turu sëriñ Abdoul ak sëriñ Mambay mii ak ñi fi nekk ñëpp di sant yit ñi fi teewal commune bi muy waa maire di sant mbooreem kuréel kuréel yi fi teew yëpp di jël cant googu it di ko jox sëriñ Abdou Lahad bëgg mu jotal ko sëriñ Abibu ak mbooleem waa Touba ci kanam yëpp waaw ak sëriñ Assane Ndiaye ak mbooleem ndey daara yi ñoo fi teew ak bàyyi daara yi ak sëriñ yi daara yi mi ngi mi ngi sant it ak a ñaanal sëriñ sëriñ sëriñ Moustapha ak sëriñ ak sëriñ ak njaboot sëriñ Mamour gépp loola jege rek moom ngay a fàtt Eh, na ndax ndax ñoom kat bis bii ñoom lañ ko dara jaale ci seen kàddu dañ koo jël joxaat joxaat joxaat kooku muy muy kàddoom eh, lépp it ngir ngir kii ne ne moom rëyaayu rëyaayu fii ñu ko defe sax moo ko teem teemal a yëkkati kàddu moo ko teemal a yëkkati moo tax mi ngi leen di sant bu baax di ñaan suñu borom dolli ak leer di sàkku ci mbokk yi ñu ñaanal gën a ñaanal sëriñ Maham sëriñ Mamor ñaanalal ko sëriñ Moustapha mii ak njaboot gépp suñu borom wattu leen te sàmm leen ba liggéeyu eh, sëriñ Touba bii seen waajur yoroon ñu yóbbu ko ndax ku nekk ci ñun xam na ne sëñ Mamor ni mu yore woon daara ci sëriñ Moustapha wax wax na léegi lu mel nii sëriñ Mamor mas na koo defal defal nit dem ba ca béréb ba mu nekk ca daaraam mu woowaa koñ ba soññu leen ci luy tax ñuy tibb ay ndab di ko yóbbu kon bu ñu nee ba tey Touba ca kanam daat koy tijji woon di initiative bu yàgg boo xam ne ñaari at mi ngi ciy dox ca nii mu ko defee ci ndaamaatu xam na ko noonu la la bëgg mu lawee ci gox yépp ci Sénégal la ñuy ndax day mbir moo xam ne ñëpp dañ cee nan la ñuy fexe bay jaare ci aw yoon. nee na nag kon eh, mi ngi sant bu baax di di di di di joxe ab soññi ak ndigal mooy nee na ndab yi fi nekk koo xam ne danga nga daan tibb juróomi ndab léegi na ko def juróom-benni ndab boo boole ci ndabal daara boole ci ndabal daara mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku yi nee na ci mbootaay ci mboole mbooloo mi fi teew ba la fay jógee ñu defal ab dog sëriñ Mamor yàlla yokk ko ay leeram. ca ca béréb ba mu nekk waaw ñu defal ko fukki lixlaas ak benn teg ci salaatu fa te teg ci salaatu ala nabi waaye man yéene ko sëriñ Mamor bu ñu paree ñu tàllal loxo yi sëriñ bi ñaan